sëriñ bi ak ñamay commandé ca mission booba incha allah ah. alors ñu tudd tuuti ci Afrique hmm. ci daan ñëwaat Sénégal tuuti sax hmm. mais Afrique xam nga ni tey suñu dirigeant yi hmm. xam naa ne kuy suivre actualité bi nga di xam li xew gis nga Afrique ni mu yëngoo bu yàggul Gambie la woon CEDEAO ak mission taxaw nar a soq yaay sox ci yaay jàmme bërki démb Mali la dégg troisième mandat ca ca ca Guinée Conakry Alpha Condé ak tey Guinée fi nga xam mooy Côte d'Ivoire acteur politique yi nga xam tey du ñëpp waaye lu bari ci Afrique tey politiciens yi guerre bu fi am ba ay bakkan wadd ci loxol politicien la jógee yaa ngi seetlu loolu waa man nag ni may dundee dama ko tegul ci di seetlu yooyu donte nag xaj na dinaa ciy jot ci information yi du nit ñëw ni ma nanga mag nanga mag nanga moo xew mhm. waaye nag taalub tele rien loolu di xool lu xew Côte d'Ivoire mbaa lu xew Gambie mbaa lu xew feneen mhm. yooyu moom wax dëgg yàlla om ak jotam 24 heures yi dafa xat ci ban li ma la bëgg a xamal daal mhm. moo xam Gambie moo xam Côte d'Ivoire moo xam Mali moo xam fu mu mën a doon ci Afrique mhm. tant que système yi yëf yi dox nii muy demee lay demee jamale bu kenn xamul bu ko wutal app li ko mën a dindi képp li ko mën a dindi képp mooy jël projet de société Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Sénégal respecté ko jàngal ko africain yëpp ñu respecté ko ñuy référé wu ci moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mooy référence ci dunduk àdduna ak àllaaxira gis nga spirituel ak temporel. Mhm. d'accord ñu ngi koy wax mais tànk càmmoñ tànk la. waaw ndeyjoor tànk la. ah mu ngoog. Mhm. léegi nag da nga naan ndeyjoor rek kay dem tànk xanaa kenn ñaanul ñu dagg sa tànkub càmmoñ. Mhm. ba sa tànkub ndeyjoor loolu la. waaw ah. macha allah hmm. mais mais Sénégal tey bi ñu joxe exemple Côte d'Ivoire joxe exemple ci Guinée Conakry ñu ngi kaw Sénégal. sa xarit sa doom nday président Macky Sall day moom daa am fu mu tee te nga ne sunu waaw d'accord kon sunu xarit yow moom ah! nga tudd <laughs> d'accord kon moom am na fu mu taxawee hmm. ba léegi jaaxal nañu bëri du ñàkk yëg nga ni léeg-léeg ku bokk ci moom ñëw ni troisième mandat mënta nekk waaye loolu da ngay bàyyi ba ay ah! troisième ak ki quatrième waaw loolu bàyyil ñoom mm-hmm. ba gis leen ñoom ñooñu mm. Macky ak équipe am mm-hmm. man bokkuma ci équipe am mm. bokkuma ci équipe am Macky ak équipe Hmm? ñoom ñiy saytu yooyu ñoom ngay laaj hmm. ñoom ngay laaj yooyu yooyu man du ay question yu ma war a répondre hmm. wa illa ñi nga xam ne dinaa leen politique loo ci parti de la vérité bis bu ñu déclenché ba leen laajee ñu tontu ñu tontu ci loolu <laughs> ah wax naa la fii lu leer ah sëriñ bi mbar da ngaa bëgg a bàyyi taalibe yi ak président Macky Sall rek ci noonu kon luy loolu ah déedéet taalibe yi di taalibe moom ma leen sëriñ Tuubaa leen moom <laughs> déet waxin la en tant que guide en tant que aussi waaw kaay ma wax loo xam ni mm-hmm. sama man lu ne jàngale jàngale naa ko mhm. man élection yi weesu maanaam fu ne ñoom ñoom ñu ci ñoom ñu ci àndoon mhm. fu ci nekk samay nit a nga fa dëgg man pour ñëpp laa du ma pour kenn du ma mhm. pour Macky waaye man du ma fekk ku nangoo wax jërëjëf Serigne Touba ca kaw ma ko yemale ku ko nangu ta wax ca kaw loolu mooy problème kooku man la concerné waaw concerné wul Mounirou mii nii Omar Seck macha allah man la concerné <laughs> xam leer nañ man ci sama bopp maa mënul ku man a taxaw ni jërëjëfe Serigne Touba ñëpp di la dégg. ma la yemaleeg koo xam ne du ma dégg mu wax ko. même bu ko dee yàlla wi itam dégguma ko man malaaka koy dégg. mais loolu la. du leneen wala xëyri yi ma ki xam na ma xam alhamdulilah ma ki xam na nga xam li xamagul ci tolluwaayu réew mi ci wàllum koom-koom Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni nii xam nga ni réew mi moom ci wàllum koom xam nga ni jafe na jafe-jafe yi bari na donte. loolu tontu naa la léegi. loolu daanaka avant question bi. waaw mais waaw mais dama bëgg ñëwaat ci ak beneen façon boo xam day gën a leer tuuti. Ah. tey réew mi lan la. bokkut ak maanaam ñi am séddoo ñi amul. waaw mais nag taxawaayu état ci boppam ci ay politique. Ah. yoo xam daf ko war a def. ci dimbali askan wi ci li war a état digganteem ak. population bi mënuñoo dimbali seen bopp bay dimbali kenn loolu mooy problème bi. bala ngaa dimbali sa bopp xam foo jëm. xam li ngay def nga koy seetantal déglu ma wax la li ngay def nga koy seetantal ba xam aw na yoon wala awul yoon yëf yi jàmbur nga yor wala sa yëf hmm? xam nga gérer nekk ci benn direction wala ci benn département ministériel hmm? dafa jutuwul dara ak sa yëfi bopp hmm. dëggaloo maa mi daabatin fil ardi illa alallahi rizqoha waaw ku nekk yàlla bindal na la wërsëg waaye li nga xamante ni bi yëfi askan wi la waaw te li la war mooy nga koy seetantal ñoom li ñu moom kenn ku ci ne li nga am mooy sa salaire rek nga moom li ci des lépp moo moom la ko tàmbalee ca Macky ba ca ka gën a tuuti waaw <laughs> loolu mooy problème bi waaw mm-hmm. loolu nag la ñuy lijjanti loolu lijjanti loolu léegi am na yoo xamante ni bii ci régime bii ñëpp war a jóg taxaw ba nga xam ne ci régime bi lay am dootu am mm-hmm. prochain régime dootu am hmm? ñu teg fi ñoo xamante ni bii wax dëgg yàlla dañ leen di tànn ci dëggal jubal leeral ak waat ci tey siirul asir mm-hmm. yombal lu jafe tey surul ansir ñu waat ci tey surul ansir waat ci ni américains yi di waatee ci bible ñeneen di ñu waatee ci alquran golf bi naar yi ñun ñu waat ci tey surul ansir avec une nouvelle idéologie une pensée de Cheikh Ahmed la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tey surul ansir boo fa demee juróom-ñeent fukki tur yàlla yii ak juróom-ñeent yëpp ku tedd ki def na ko fa ca biir tudde ko yombal lu jafe nañuy nañuy waat ci tey surul ku ñuy jeex responsabilité ba noppi ba nañ la ko jox nga waat mhm. bu ko defee rek sirru ba ñëw. mais la naroon a jafe di yomb ci yow. Mhm. mais loolu lay am day fekk ñiy jóge ji ñu leen di jox ndomba tànk yi am fu ñu jógee. bon loolu laa ci ñun lay jóge justement ci ñun lay jóge mhm. <laughs> ci ñun lay jógee maanaam dañ leen a am. ñi ma lay wax nii. ñu ñu ñu am ba denc la dañ leen a denc ba teg leen. xanaa waxtoo ñëw rek ñu génn leen yow yaa war a jiitali yow yaa war a jiitali yow yaa war a jiitali loolu la mhm. mais am na foofu lu aaja taxaw tuuti sëriñ bi ndax mooy Sénégal ni mu bindoo xam nga ni tey projet bi rafet bi nga am rafet na macha allah mais li jaaxal nu bari mooy fii ci Afrique rawatina Sénégal bari na fi ñu taxaw taxawaayu diine lii nga amoon projet amoon nañu ko yàgg na waaye mujjiwul aboutir bii bi may wax de bu lii li may yi may wax yu bees la fi moo mhm. du ah, ah. Modou hmm. yi may wax fii de ah mbaa bëgg bari na yu bees ni hmm, yi may wax ni ak ni ma koy waxe hmm, yi may wax ni ak ni ma koy waxe moom la latewu fi latewu fi déedéet waaw mais mais ñu xaw bokk doctrine bi ni ma ko waxe mooy kilifa génne ko taxaw mooy Serigne Touba rek ak yow ak mbindam ak yoo mais est-ce askan wi pare nañu sénégalais yi pare nañu nag dañ leen di préparé kenn tëbul pare ah. dañ lay préparé ba nga pare xam nga léegi <laughs> dañ lay préparé. préparé tey préparation boobu tey préparation boobu tey. Hmm. ana foo ci toll nag ngir préparer population bi. ba nu xam ni lii mooy projet Serigne Modou du Mbacké Noreyni pour Sénégal. personne du ko def. Mhm. loolu li nu ko tedd ki wax ci manko mhm. ànd mhm. bëggante jàppante bokk xalaat. waaw di doxandoo di jëfandoo. loolu na ko tedd ki digal dañuy def lu ci nekk état bu boppam la na mhm. nanu ànd ba noppi nanu boole xol yi ba noppi li nga moomul mhm. li nga moomul te ma moom ko mbaa mu niru mais moom ko mhm. ci bàyyi xel yàlla waaw li ma moom li ma moomul man te nga moom ko naa ci bàyyi xel yàlla donte man lañ ko dénk itam te muy séef du dëgg waaw maanaam dafa am lu ñu nu sant yàlla sànni wunu fii rek dëgg la sànniwunu fii rek bàyyi nu wax dëgg yàlla ba mu ne wa ma adama al asmaa kullaha sunu maam adama mu xamal ko bi mu koy indi fii xamal ko fii lépp lu mu war a xam mu xam ko xam-xam boobu ñun ñëpp nu koy donn gis nga tout tànk bi liir bi bu ganee àdduna la muy njëkk a xàmmee mooy weenu yaayam xam nga loolu xam-xam la waaw muy dem ba ci àgg muy xàmmee lu tàng ak lu sedd ak lu wex ak lu lewet waaw muy dem ba jàng jot waaw ci njàng mi ñu ci rawante njàng moom nag bu nu fi egsee lu diplôme yi bari bari bari bari mhm. te jàngoo dara ci xam-xamu ku tedd ki xam-xamam mhm. laa la wax mhm. donte ku tedd ki xam na lépp itam dafa yor xam-xamu yàlla yan xaaduli fathul xuyubi min alim tahlimuhu li xaada afdala ulum maanaam yàlla da ko jox xam-xam bi gën bi gën ci doomu aadama bi bu nee bi gën rek moo gën ci doomu moo gën doomu aadama moo gën ci eh, dundam mm-hmm. quotidien am dëgg la waaw léegi nag loolu buñ ko fi nee kupp yam ci xam-xamu tubaab yi kepp mm-hmm. loolu moo tax ñuy échec ak a échoué mm-hmm. waaw ak di def n'importe quoi euh, réew bi maa ngi koy wax sàng bi ni tàmbali macha allah dafa bari ay ndaw ci projet bi ngay wax nii ndaw yi xam naa daañu ci am cër bu rëy rëy ndaw yi li ñu leen war a defal dogguma la sax ah, waaye ndaw yi li ñu leen war a defal mooy àll baa ngi nii suuf si senegal yaatu lool ndox mi bari waaw ma laaj leen ci ñu lànk ngir ndaw ñi pourtant nañ ko mos a joxe parce que dinañ fi jóge dëgg la dëgg la dëgg la waaw dinañ fi jóge parce que xam lu nekk ak waxtoom nguur moom nee naa la day naxe boo ci nekkee da ngay mel ni boo ci nekkee yi lay cuqataan di lay cuqataan ngay day mel ni tooki doo bàyyi xel ni di nga fi mos a jóge te nguur mulku ya gadan li zaati la ko tedd ki wax walaysa yanhu dararun li zaati te ma ngi leen ko waxoon ca Gabon sama nguur borom gi ëllëg man la ñeel te bu boobaa luy loree du du ma jege mhm. mooy bañ koy mettre au di ko fetal ndeysaan ñii dañoo comprendre wul rek comprendre gis nañ ni projet bi nga waxoon yaa du trois ans quatre ans mhm. muy nan la jox ndaw yi nga yóbbu leen ci tool yi te gis naa gis nga man awma problème parce que dama tolérant gis nga seen yii ñuy def nii mhm. <laughs> dama man awma problème mhm. àjjana laay dund yërëm naa ndaw ñi waaye leer na ma ne ku tedd ki dina leen wàllu awma ci lu may werante mhm. dina leen wàllu tey mbaa ëllëg mbaa ginnaaw ëllëg mhm. awma ci lu may werante ndax Serigne Touba la ñuy dund te Serigne Touba dafa mënug nitam nee na moom kuy songug nitam bu ñëweeg bol dem du laaj lu xew day dal ba noppi te nee na fu mu dal mu nooy mu soog a taxaw fenn ana lu xew euh, fi ma tollu woon sànq mooy projet bi nga am macha allah mooy na la jox ndaw yi nga fexe toj àll bi ñu gàddu gobar yi toj àll bay dundee man kay nekkatuma ci yooyu xanaa ñoom borom baax ay tojee àll yi man ñoom borom baax daal nañ dem tojee àll man moodu moom tojul àll waaw mais ñoom borom baax boobu tey buñ la joxoon ndaw yi da nga koy jox ñoom borom baax ah mais tey gis naa ni président Macky Sall tey mi yor bopp réew mi tey dafa am plan de relance mu ne ci wàllu mbay la ko war a def kon daa mel ni kon moom li doon wax ak li ko laaj defu kon <laughs> <laughs> nanu fexe maag yow bay wax luy jariñ waa yow mi. ay makeek yi ci la nekk nii de. <laughs> ndax plan de bi am ci cër sëñ Modou Kara. plan de relance bi yi nañ ko ci mur yi ba mu faloo bi mu faloo nekk ci lu ko neex léegi nag nañ ko déglu ba ba muy folleeku <laughs> waaw. ko déglu ba ba muy folleeku waaw ko fi gis mu falu nag dina folleeku ko dul yàlla. laa bëgg nga xam ko ah. <laughs> waaye boo fi nekkee naan kara makki makki kara loolu xale yi ko njëkk a bindi ci miir yi faloo na fi nekk fi lim fi nekk. juróomi at la ñu ko wutaloon pour mu nekk ko fi. ba hmm. décret bi wàcc di jóge ca asal juróomi at la fi waroon a am mi ngi mel rek un match de football boo xam ne match nul dafa am ñuy def prolongation après ñu ni kenn dugalul ñu ni série de penalty mooy ya nga doon <laughs> yooyu sax du ma ci bëgg a sori ndax damay bañ nga delloo sama ci ay élection ki ay troisième mandat ki quatrième. <laughs> mais sang bi su ma déggee sa wax dafa mel ni. <laughs> Euh, euh, melul nen melul nen. xaaral dafa mel ni sëñ bi. Ah. dafa am lu mu doon séntu. ci ki ci bopp réew mi amul ko ci moom yaakaar ni ko Sénégal bari yaakaare woon mbaa du kon président la taxoon ñu fal ko ko defut nga bëgg a wax après daal mi ngi def li man nit mën naa def lu mënu mi ngi def li mu man hmm. ku def li mu man nag ba noppi ku def ku def li nga man sa jaan wàcc boo demee keneen ñëw moom it def li man loolu la mais du dul mbirum kenn du mbirum ñaar du mbirum ñett état la état la nañu tànn ñiy gouverner waaw bu bëggee mandaam egg ne def ay réforme yu sincère mm-hmm. ay réforme yoo xamante ni bii ci équipe am waaw tànn ñoo xamante ni bii leer na leen ni duñ jël xaalisu réew mi di ko yóbbu fenn mm-hmm. waaw tànn ñoo xamante ni bii du ñu wax lu bokkut ak du du weex ñu ne dafa ñuul mm-hmm. du ñuul ñu ne dafa weex loolu yomb la ab minorité la ñuy doon boo xamante ni bii li ma waxoon léegi rek inal xasanaat yi sim na la war a def le plus rapidement possible dans mois loolu la war a taxaw tem mm-hmm. Mm-hmm. def réforme yu soppi équipe bi waaw mm-hmm. bu ko defee rek jàmm dëkk bi mën a soppeeku euh, mais sëñ bi macha allah maa ngi wax sànq ci mbirum bi nga am muy soppi réew mi man loolu xaaral ma wax hmm? naa la fi a ñëw danga maa ah, dégg dama la benn projet la am dégg la sama be projet bi ma am bokkut ak projet réew mi de man projet mondial laa am. waaye nag bay feewu tànk. waaw waaw maa maa la ko njëkk a wax fii de. dëgg la waaw mhm. léegi nag damaa bëgg gis nga ci insister rek. mu mel ni man damay yore jële fële mhm. am gopp jële fële ratu. du loolu waaye léegi li ma xalaat mooy est-ce que tey sëriñ bi projet bi nga am ni mu tollu tey. Hmm. tàmbale woon nga ko mais foo toll parce que ciy baax. bu fekkee danga am kuréel. boobu ba ko ñee bloqué bu fekkee bu fekkee agriculture bee tax ngay wax. déedéet sax maa ngi ci beneen mbir. ba ma baalee mooy comme que dafa am ñu fi nekk. Hmm. ca ngir soppi loolu brusquement du yomb hmm. est doon étape par état fexe bay seppi ñenn ñi nga tàggat ba noppi ba teg leen fële ndaw ñooñu hmm. ñu dugg ci biir nag ñiy doxal bu ko defee tàmbali faa soppi mais ñoom ñu ne la xanaa ñun mënuñu ni ñii nañ dugg par force di déet waaw mais mën loolu da koy dugal ci lii ma la wax léegi rek ma mhm. wax naa la ni la Macky li mu war a def ay réforme la war a def mhm. loolu la waaw réforme la war a def politique bii li ma ci ump ci ñoom du bari mhm. ndax fenn fu nekk sama nit a nga fa dëgg la fu nekk mhm. sama nit nga ca ñoom ña nga ca pouvoir samay nit nga ca opposition ña nga feneen mhm. loolu la mhm. fu nekk maa nga fa dëgg la lool la li may ump ci ñoom du bari dëgg la leen di ump man du bari waaye ñoom it wax naa ko magi fii ñoom it li ci ñoom du bari loolu la xam naa doxaliin yi xam naa li ci jëm fenn ak li ci jëmul fenn xam naa li ci jëm ci ñoom xam naa li ci intérêt Sénégal Sénégal yi ak li ci dul seen intérêt mais ñoom laay fàttali bu tëdd ki dana aqbalati dunya illa ya xablu wa bixtuha fa zala anil kablu ba ko adduna wutee na mu ko def foon ko gannaaw mhm. maanaam ñoom ñi jarul ñuy wanati li ci seen kanam jarul ñuy wanati adduna kanam li ñu li ñu am ci àdduna doy na mhm. nañu ko gérer mhm. lu ko may àdduna da leen di nax day naxaate day ci ki ci nekk ci nguur ak ki ci nekk ci leen moo ci yem war nañoo bàyyi xel adduna adduna moom day naxaate rek day naxaate bi nafsin waaw wal hawa wa dunia waaw lu jóg ñu ni seytaane la te seytaane quatrième position la nekk kon doomu aadama yi la annafs alhawa <laughs> annafs bu mooy bakkan topp sa bakkan alxawaa mooy topp sa bànneex adduniya mooy topp adduna ku tedd ki nag ne hubbu dunya rasu kullu xatiatin nee na bëgg àdduna mooy bopp bépp ñaawteef waaw àdduna moom nan ko defum noonu ndax yàlla nu ko wax ni seen noonu la iblis nag di seen noon bi nga xamante ne bii moo yore télécommande àdduna hmm. télécommande bi mhm. ñu maanaam ñi gëmul yàlla ñëpp ak ñi koy bokkaale ñëpp iblise leen ñëpp iblise leen yilif mhm. ñi ate ak ñi bokkaale yàlla naan yàlla am na fii am na faa mhm. <laughs> ñoo ñëpp iblise leen ko affaire mais ci commande iblis boobu est-ce que amul beneen commande à côté bu mën a verrouiller la muy commandé loolu la noo ko tedd ki wax daf ne moom mooy malaz mooy mooy mafza mooy sauveur de l'humanité ku bëgg a mucc tey la ëllëg ñëwal ci moom loolu la ko tedd ki wax mhm. loolu ci ngay dugal projet de société bi ma lay wax mhm. waaw bul ci génn dara waaw ku tedd ki dafa bëgg a wax ni moom ci moom la ñuy sowee ci moom la ñuy jariñoo mhm. xam nga loolu leer na yéen leer na leer na leer na <laughs> macha allah mais il faut ñu wàcc ndaw ñi waaw ndax réew mi fi mu toll tey ndaw ñi dañoo aaja dimbali ndaw yu bari tey Euh, am na jom am nañ pasteef mm-hmm. waaye ñu ngi ci leneen ak leneen ak leneen mm-hmm. wax naa ko sànq may tàmbali mm-hmm. daanaka mën naa wax ni euh, da nga doon le marabout de la jeunesse marabout moom musuma ko doon du ma ko doon marabout euh, guide spirituel waaw boo xamante ni bii ay ndaw dan la sopp ci sa doxalin te loolu occasion la tamit nga gaaw defal leen ay orientation tey booy xool jeunesse sénégalaise bi tey loo jàpp ni moo war a am ci ñoom ba mu leen a sauver ndax xam nga ni tey ndaw yu bari ñu ngi ci leneen ak leneen ñi jël nañ gal yi ñàkk ñàkkum xëy indi na ko ñi ni ngi ci yeneen mbir yoo xam ne ko lu gën ban projet nga am daar daar pas à long boo xam da nga lii ko defoon moom wala nga def ko dina mën a dimbali jeunesse Sénégal tax mooy avenir ba nga ko waxee rek laa noonu du lu kenn yi def mhm. projet bi man du sama projet waaw ku tedd ki moo ko moom mooy lii defar nit ki mhm. liy defar nit ki nag mag mi moo ko war a jàngal xale bi mhm. maanaam famille boo dem mag a nga fa ndaw ña fa nekk ne leen yar mag ñi xale yi nañu yaroo ci mag ñi ba pare mhm. mag nag bu yarawul nu mu yare xale du mag ñëpp yaru kon ki war a faj ñu feebar moo feebar ne woon na ma ni ngay yaree xale yi war nga am boole mag ñaa ah. <laughs> Abdoulaye Wade mu sama wax loolu fee fi ñu toll nii kër gu nekk dangaa war a yar say xale mhm. waaw ba bu ñu génnee bu ñu demee ca école ba ki leen di jàngal day sawar bu ñu gisee xale bi yaru mhm. du nekk déyante wax du nekk yi kii di nekk ci leneen day concentré wu ci maître bi mhm. waaw maanaam ci yar yi moom ci xale yi ci kër gi la war a tàmbalee bu ko ñëpp defee rek xale yi mhm. yaru waaye dala koy jaral nag mhm. da ngay xam ne alxalqu ayalullah kii dafa jaar ci yow rek waaye doo fa nekk naan maa la juróon bëccëgu ndara kàmm parce que yow mi koy wax dañ laa jur yow it indi fi sa bopp waaw te bari na lii tax nit judd bari na ñu koy def te nit du judd hmm? li koy def bari na ñu koy def te nit du judd mm-hmm. moo tax xale bi boo ko juree itam def ko nawle mm-hmm. def ko nawle dafa am nooy war a waxee moom loolu ku tedd ki da koy jàngale sa doom bi la jur sax bi nga jur sa doom bi nga jur mm-hmm. warta wax ma noppi nga ne ko waxoo dëgg waaw ma tedd ki jàngale waaw ci war ma déedéet dañ laa jaarale ci moom rek dañ laa jaarale ci moom waaye yéen bokk fu ngeen jógee dëgg la yéen a bokk benn borom bokk benn kilifa waaw moo tax ñu ne wolof naan doom nawle la doom nawle waaye bu ñu leen yaree bu ñu leen yaree ci kër yi ba noppi nga xam ne bu ñu demee ca jàngukaay ba yar lañ fay yóbbu mm-hmm. bu ñu jógee ca jàngukaay bi it feneen fu ñu dem yar lañ fay yóbbu mm-hmm. loolu mooy éducation de base éducation de base ah, bu fekkee éducation de base bi taxaw na ah. war na am lu ko accompagner accompagner bi mooy wér weesuwul njàng mi bu ko defee ñu mën a am fu nu liggéeyee waaw waaw bu ñu demee ba tollu ci liggéey xam naa ne xidma ma nga cee ci lu am solo lu bëri mm-hmm. yan nga ci war a mën a seppi rek baaxee ko ndaw ñi tey bu rombee yar bi ak la ci aju ndax boo génnee ci dëkk bi gis na li nekk ci ay ndaw hmm. ñii am nañu job macha allah waaye am na jafe-jafe gu bari gu am hmm. ma jàpp ni ci njàngale mi si xamul bamba am na ci loo war a mën a seet waaye nag jàngale itam boolewu ci nii ñëpp dañuy am mm-hmm. déedéet dëgg la wërsëg yi tolloowul mm-hmm. boolewu ci nii ñëpp dañuy am de ñii dañuy am tuuti ñi am lu xaw a bari mm-hmm. ñeneen ñi am lu bari ñii ba ñii daanaka xam nga dafa am lu ñu tuddee miskin. waaw mm-hmm. hmm? ah, miskin. waaw xam nga dañu am al mm-hmm. masakin wal fuqara. Mm-hmm. waaw al masakin miskin ak fuqara ñoo ñoom ñaar ñëpp ñàkk waaye kenn kee gën a ñàkk. waaw ki nga xamante ni bi nag moom dafa arniya dafa woomal moom dañ ko wax ñi nga xam ni dañoo ñàkk. lii ko yàlla jox mu koy bokk ak ñoom waaw. waaye yàlla yemale wuñu ba kenn ku nekk doon millionnaire wala ku nekk kenn ku nekk doon milliardaire déedéet léegi xale yi ngay wax ñëpp. wallahi bu ñu defoon li ñu yàlla wax rek. Mhm. ñëpp am satisfaction. Mhm. ndax boo amee ki am cinquante mille. Mhm. waaye fi ñu toll nii bu fekkee salaar yëng hmm? li xew ci ñi nga xam ne dañuy xaar weer wi dee ñu fayu. dañuy ragal seen dépense weer manqué. ñu calculer ko bis bu nekk maa ngi joxe nangam. sa salaire bi lii la. teg ko fële jox ko sa soxna mbaa nga yóbbu ko ca boutique ba. yàlla diglewul <laughs> daa bëgg ngay lekk tuuti di naan tuuti di nelaw tuuti ne kee nga xam ne joxu ko mm-hmm. waaw nga partagé ak moom yaa ngay fukk yorul dara jox ko ñaar yi wala ñett yi waaw mm-hmm. boo daan soxla fukk léegi na la ñett yi doy loolu la li ma loolu daal <laughs> mais mais sang bi sang bi macha allah idée bi rafet na waaye ndaxam kon sëriñ Modou Kara dafay prôner république islamique au Sénégal muy sa projet ndax li nga wax lépp l'islam la njàngale la mais jëfewuñ ko depuis des années waaw kaa ma wax la fii bul fàttali nag bul fàttali xam nga islamiste laa yomb na. Hmm. musulman laa yomb na. mais dafa am pratiquant ak non pratiquant. Hmm? Mm-hmm. fi mu toll nii am na ñoo xam ne ay jullit lañu te duñ julli te la wala du dëgg. ok ah mu ngoog nag. Mm-hmm. <laughs> fi mu nii am na u uude uude yoo xam ne du ñu ëw. Mm-hmm. am na ko <laughs> am na uudi yoo xam ne du ñu aw mhm. waaw donc am na baykat yoo xam ne du ñu bay mhm. waaw donc fi ñu toll nii mbir yi daal li ma la wax rek mhm. waaw comme Serigne Touba daal moom la ñu yàlla jox te wax nañu ni nit ki war a dundee pour am jàmmi tey ak ëllëg bu nu ko jàngalee xale yi ñu màggaale ko ñu maase ci lool réew mi ñu jël ñoo tànn ñu jub parce que am réew ñi koy diriger un gouvernement dañoo minoritaire tànn ñu jub lu ci yomb la ñëpp mënuñoo maase dëng ah <laughs> ci yomb la ñëpp mën ñu ma si dëng mais sama laaj mooy est-ce moo sëñ Modou Kara tey république islamique la jàpp ni mooy dox pour Sénégal wala ñu bàyyi ci nii rek nii parce que tamit nii système bi yàgg na waaw man de ci doxagul comme ni nga ko waxee waaw man de ay affaire u république islamique kii yooyu ndax man li may dund mooy xasaay di hmm. waaw Serigne Touba bi gën la doon rajawtun xiyaadal hizbi lillahi wahdahu bi qati lazi yaxya wala yuhyi man yuhyi laay wax waaye gis naa ñu bind yaxya mhm. bi xayru islaam yi bi gën moom la Serigne Touba mhm. te kenn mu ta gis mu dagglu loxo mhm. kenn mu ta gis mu raylu nga xam ne kon savant yi boroom xam-xam yi war nañoo jàngataat contexte ya nga xamante ni bii ca la saoudien yi daan rayee ku rey mba di dagg loxo ku jël yëfi jàmbur mm-hmm. léegi boroom xam-xam yi dañoo war a dellu foofu ba xam loolu dafa war a na doon ba xam loolu pour régler mm-hmm. benn situation la woon wa illaa dafa war a continuer ndax boo a continuer kon ku tedd ki ku ku ne xam na ni sunna si yonent bi du ci bàyyi dara alayhi salaatu wasalaam waaw waaye kenn mosu koo gis mu dagg lu loxo kenn koo gis mu ray lu ku ray mm-hmm. waaw nag kon nag xam nga bu ñuy nekk fi daan ay république islamique ak nangam ak i nangam naar yi li ñu ñemee sax daanaka américains yi ñemewuñ ko ci njaaxum hmm. <laughs> Hmm. kon yooyu ay appellation la rek. ay ay ay wuuteen la xëy na. non non non ay appellation la rek. Eh, sëriñ bi ñun ñu ñëwaat un ci ci màggal gi nag. màggal ak dëkk sel bi nga xam mooy Touba. Hmm. dama dalal euh, barki démb ab kuréel gu am solo mi waa Touba ca kanam. ma dalal leen eh, ñu sargal la. di wone ni ca ndaamaatu. ba fa mbënd ma ame at ci ginnaaw taxawaay ba nga ci amoon ak taalibe ngir dimbali askan wa mm. tey jamono ji tey ñoom ne maa ngi leen di sant dañoo gore rek waaye ku ne xam na ne man moom <laughs> jaamub ku tedd ki laa dëgg la boo nekkee jaamub ku tedd ki nag da ngay nekk jaamum ñëppam mm-hmm. wallahi moo tax Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér amiin tabarakallah waxam jooju dama bëggoon façon bi mu waxe woon ñu koy far di bàyyal di koy faral di bàyyi xel daal waaw boobu njàngale ak boobu wàcce boppam mm-hmm. waaw sama mbokki bopp yi ma bokkal sëriñ bi nga xam ne maay seenub xaadamam hmm. xam nga luy maay seenub xaadamam mooy maay seen mbindaan hmm, hmm, nga xam ne maay seen mbindaan mos ngaa gis loolu waaw te nekk ba zalun ci auteur nekk ba zalun ñooñu ngay wax waa jëm ca kanam fi ñu toll nii man bu amee addi ju may joxe ñoom laa koy jox ñooñu nga wax nii na yu may waaj doxal ak ñoom waaw sëñ Muntaxa moom lu dijji rek waaw lu dijji rek mbaam waaw ah, yu mag yu am solo. lu di ji këndëng wallaay ndeysaan wallaay wallaay kon mu mel ni euh, taxawaay boobu ba tey. mi ngi xanaa li ma bëggoon a wax xale yi rek taalibe yi waaw ndem màggal gi dem situation bi demee na ni mu demee. Mm-hmm. ñoom it ñu xool ndax jamono bu nekk ak réforme yi war a ak changement yi war a am. Mm-hmm. inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waaw màggal gi discipline bi lu mu gën a mën a yokk. Hmm? ak li nga xamante ne bii mhm. ay règle la mhm. yoo xamante ne bii di ay mesures yoo xam ne état bi moo ko fi teg mhm. waaw par la voie de ci du chef de l'état Macky lu ñu ci man ci respecté ko rek waaw ci man ci respecté ko rek bari na sax ñuy wax naan ci maanaam ñun sama njaboot dañoo weexu donc déedéet dañu ko donc bu ñu weexoon donc mu baax dañoo ñuulu donc la ñu war a wax dañoo ñuulu donc waaye man nag maa ngi nii sol lu ñuul. lu ñuul aayul ndax guddee tax. te guddi mooy laa ilaha illallah. macha allah waaw bëccëg bi li nu ci yàlla may nuy xool. ak di dox suñuy activité waaw moo tax muy Muhammadu Rasulullah guddi gi di laa ilaha illallah bëccëg bi di Muhammadu Rasulullah moo tax yonente bi nag. Mm-hmm. wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ji gis nga. Mm-hmm. yërmande ji foofu la tàmbalee. yonente bi mooy bëccëg bi. dëgg la waaw leerug yonente bi mooy leerul bëccëg bi mm-hmm. waaw. maanaam màggaayu suñu borom mooy lëndëmal guddi mhm. <laughs> waaye dégg nga fii de hakaza bi mu waxee waaw alif lam mim innama sabilu wala tujadilu mhm. te foofa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ndeke moo nekk ci biir laa ilaha ku tedd ki wax ci fustu bi laa ilaha illallahu muhammadun mhm. arsalahu ilah waaw ñun daal sant leen war a def ndem am nan ku tedd ki daal moom sant leen war a def te moytu jàmbat yi nanu dimbalante rek solidarité bi na xew fépp rek jàppalante ci mag loolu lañ ñu digal. bu ko defee rek kon mën nañoo mbokki taalibe yi. Ah, tam taal mbokki taalibe yi discipline bi. la ñuy gën a yokk. Mm-hmm. maanaam xam nga bis yu mel noonu. lépp loo doon def ci lu baax. da ko mm-hmm. war a yokk yokk ko. bu dee dal mm-hmm. da ngaa war a yokk dal ga. bu dee yërmande da nga ko war a yokk. bu dee saafonteeg nit. ci xol bu sedd. ci xasaayit yi Serigne Touba wala waxtaan ci Serigne Touba da nga ko war a yokk lépp rek. waaw ah. ndax li ma soxla li ma soxla laaj sax mooy ndax taalibe yi tey. Mm. tàggat ñu xam mm. leen mm. ndax dana am ñoo ci yóbbu Touba ñu ñu dimbali askan wi ci ñëw gi ci orienté leen bu dee joxe masque ah, bu dee mel ni noonu ay joxe masque nag wóoruma man mm-hmm. ma duggul ci lu ma wóorul déedéet yooyu moom du ma dugg ci lu ma wóorul en borom baax nga ne ñoom Abdou Khoudoss a ngi nii mm-hmm. waaw xale yaa ngi nii daal waaw gis nañ ci réew mi maa ngi ak nii maa ngi ak masque yoo xam ne xadd fakka kabala bi mm. moom ma ñor ci masque yi macha bu masque bu bu sëñ Muntaxa bu jàllee rek bu jàllee bu jàllee parce que boobu yeneen la ndax kooku ma nga ca zalul waaye yi ci des nii masque yi siiw yi nii nga xam ne ñoo chinois yeeg américains ñëpp ko bokkale non non non yooyu moom nekkuma ci man xadd fakka kabla laa wax waaw on libre jëng ba ko na waaw moom laa ne ci taf ci kanam xadd fakka kabla macha allah macha allah loolu leer macha allah am na solo lool euh, euh, sëriñ bi euh, ba tey ci tuuba ak euh, fan yi nga xam gis nga ko daanaka ñu ngi wax waxu euh, taxawaay bi nga xam suñ Muntaxa taxaw na ko xam loolu sax lu ñëpp doon xaar ci moom la wanewaat na beneen beneen relation diggante euh, Touba ak Tiwaawoon yëkkati na 200 millions jox président Macky Sall ci xeex mbirum mbas mi yëkkatiwaat na leneen 100 million jébbal euh, sa mbokk ma nekk Tiwaawoon muy Serigne Babacar Sy Mansour yooyu yëpp de xanaa wane waat na ni kon ak booloo ko bennoom day am solo ci Sénégal ak fi mu toll. ak yi nga yëgul. xam nga communication dafa xew rek. lu sëñ bi lu sëñ bi def ñu siiwal ko waaye li sëñ bi def te siiwul kenn xamul lu mu toll. dëgg la. sëñ bi tàmbalewul ci ñooñu de. Hmm. gis nga ñii mu tuddoon ni sama mbokki bopp yi ma bokkal sëriñ bi. ca ñoom la tàmbalee. te tàmb bàyyiwul sax ba ba toog doon xalifa mm-hmm. waaw yooyu moom wax dëgg yàlla yàgg na ci mm-hmm. te loolu moom noo comment laa lay wax façon yooyu moom waaw waaw du ma ci du ma ci a sori mm-hmm. ku xam na ni sëñ Muntaxa ku ko xam ba nga ko xamee ba tey ci yooyu nga ko xam ci def lu baax <laughs> ak dimbali nit dëgg waaw ak ku ñëw mu ree la ree yi bokkul de mm. waaw loolu laa bëgg ñoo xam ku nekk ak la mu la reyee mm. waaw ku basé wu ci ree yi rek dangay ngay trompé <laughs> ku nekk ak la la reyee waaye ku defe ne genn règle la rek forme ci forme moom genn règle la waaye ku nekk ak la ndeysaan ak jara moytu lu baatine la ah, nañ ma moytul xalifa yooyu ndeysaan moytu rek ah, ah, bi euh, gisoon na fanee ci ginnaaw sa menn mbokk yëkkati woon kàddu euh, ci ci ci ci yow euh, am nu mu waxee woon <laughs> ma tudd ko ba léegale ah ba léegale <laughs> ku la yeggale ba bañ a yeggale kooku waaw yemul ci mbokk rek kooku la ndeysaan waaw kooku soppe la man ci ay fan sab laa bokk ndeysaan <laughs> jarul ñuy tudd tur yooyu xam nga ma xam gaa yi ñëpp xam nañu kay maanaam moom mhm. jarul ci suñu kii moom suñu question réponse moom jarul ñu ko ci boolee ndax moom yemul ci mbokk rek waaw maanaam day soppe <laughs> il m'intéresse beaucoup mhm. jarul te loolu c'est du passé xam li passé moom nañu mhm. dem ci kanam rek mais mais xam bëgg suñu ñu li mel loolu mooy. explication bi ciy baax bu ko defee ñu xam solo gi ak waxin bi en tout cas bàyyam kii kii teg na benn waxtaanam bu am solo la. ma tombe ci waa Bantamba ci fu muy waxee ni. l'islam kese kese. ma tombe ci Serigne Cheikh di ko wax. l'islam kese kese waaye wax na dëgg. waaw mooy li nga ma doon wax nii rek. même bay bay tudd état islamique ak ay yu demee noonu. du mm-hmm. loolu baatu islam. xam nga islaam baat la boo xam ne boo ko conjugué bu la neexee fu la neex man nga ko faa jëmale mm-hmm. islam taslim salaam salim mm-hmm. waaw moom <laughs> da nga koy mm-hmm. conjugué rek waaw al islaam nag en tant que tel moom wax dëgg yàlla Serigne Touba moo ko doon waaw ba noppi defal ko li mu ko defal waaw jox ko ndam li mu ko jox waaw wallaahi moo ko wax moo ko wax. Mhm. waaw ku tedd ki daal moom moom mooy lépp. mooy lépp waaw mooy lépp. Ah, sànq boo gisee ma duggoon ci loolee nga ni passé na. Hmm. Euh, li ma jublu rek mooy sëriñ bi ni muy soloo. ni solo. Euh, yow. Ah. ni ngay soloo. Euh, def benn général maanaam habillement bi tey. Hmm. ñu bari comprendre ñu est-ce que dañoo bëgg te comprendre mën nañu informer un peu ni ngay solo explication bi communication bi lan nga ci jublu. xam nga léegi mhm. doonul ak jublu. bu dee bu dee tenue générale bi moom li ma ci jublu wax naa ko waxati ko xanaa da bëgg ñu dellu ci. Mhm. maanaam ku tedd ki ñi mu àndaloon. tubaab yi mu àndaloon seen supérieur yi noonu lañ daan solo. ma bëgg mhm. leen na wan ni da ngaa war a solo nii naan jërëjëfe Serigne Touba. macha allah xam nga loolu leer na bu dee mhm. yeneen tenue yi nag moom damay incarné citoyenneté du tey yëfi chinois laa naroon a génn dama caa mujj génn ma nga ca lal ba. tey damaa naroon a solu col goo xam ne musuma koo sol. nu mu tudd loolu dinaa <laughs> ay col yi ah man daal col gi mënu ma laa wax nu mu tudd waaye tey damaa naroon borom baax mi gis na ko ci lal bi mm-hmm. ak ak mm-hmm. saa gis nañ ko mm-hmm. ay yu yuy lëfër lëfër la nga xam ne samay loxo sax du génn waaw yuy lëfër lëfër yi loolu lu muy symboliser ci yow boo ko soloon ah man <laughs> xama nee naa la damay incarner citoyenneté du maanaam citoyen bu nekk séq na ma ak yow dara xanaa gisoo ma jàngalu fii 16 millions bax baxa 16 millions bax baxa waaye boo ko addadee boo ko additionné mm-hmm. citoyen du monde yi ni ñu toll kenn ku nekk am nga ci double bien macha allah waaw te loolu jublu ma ci dara lu dul li Serigne Touba nekk sover de l'humanité mm-hmm. waaw xanaa xamoon ne monde bi Serigne Touba koy sowe lu ne dina xew mm-hmm. bañ nangu ne ba àdduna bépp nangu ne nag kii sowe kii sowe monde bi ndekkee fii la nekk waaw waaye balaa booba lu ne dina xew macha allah man fi mu toll pour samay façon moom. Mhm. pour jéem cee xam dara léegi. Mhm. day day day day mettil bopp nit. waaw ah, da ngay mhm. patienté rek. di xaar ngay di ma suivre rek ba xam fan laay teere ji. fee gisu leen may jóg di tukki di ñëw chef d'état bi di ma teeru des na. Hmm? moo doo la wax loolu. fee gisu ko rek des na. xam nga lii mosu daanaa ko wax xale yi rek waaye mosuma ko wax publiquement waaw ci ci en direct nii mhm. fii ak leen may jóge tukki chef d'état bi dama teeru des na moo doon la wax loolu macha allah gis naan sax ni ngay solo dem na ba ba ci tàggatum ndaw ñi mm. euh, xam naa ni fan yee sax amoon na fi xawoon jib ci ni ah sëñ bi de dafay dafay forme ay ndaw ay ñoom nooru xëy na gars yi costaud nooru man ah? nooru da bëgg gars yi ñu ni kii lum nar ragal loo ñu bari xaw est-ce mën nga wax un peu euh, waaw xam nga ndaw euh, euh, lan la ne mu ne mhm. d'accord bële de xam naa ne bii da ngeen koo ba ca des fi ca biir wala génnul tey booba génnul xanaa xamoo ni mhm. bi ma def woon fii mhm. xam nga ku tedd ki nee na mu néeru néew ma mu génn bàyyi loolu xanaa xamoon ni fi ñu toll décor bi ma waxoon ñu def lu ko fii benn xale jibril maa ko tuddee jibril sax mm-hmm. maanaam daf ma cee defal yoo xamante ni bii hmm? mm-hmm. maanaam ni ñu ni ñu ni ñu liberté bi nu ko tedd ki defal mm-hmm. te xamagunu ko moom la ma defal ay misaal dina mus a génn gisoo ma ni la gisoo ma ne la ñun masque yi ñun ñun ñun bambis yi ñun waa diwaan masque yi dañ ciy def xadd fàkk kab la macha allah waaw dañ ciy def xaddi fàtte kabla mooy mooy on est libre mm-hmm. mooy jëng ba dajjiku na ba mu ne ba mu dajji koo yàgg na de ñun ñoo fi nekk di lang-langeeg moom rek dëgg la dëgg la ba mu dajji koo yàgg na mm-hmm. ñun ñoo fi nekk di lang-langeeg moom macha allah waaye ay affaire formation yooyu man xale yi li ma leen di former mooy jërëjëfe mm-hmm. Serigne Touba macha allah ji xam ne malaayika yi dañ koy wax waaw macha allah dafa mel ni masque sax euh, am naa ci bul ma ci jox li mm. Eh, ndax ndax ndax ndax bii la incha allah. waaw boobu la bii la. boobu la boobu la macha allah. macha allah xam nga lii kon lii ab jéng la bu ñu daara jee ko liggéey. mi ngi nii xadd fakk kab la. Mhm. macha allah. mi ngi nii waaw macha allah. xadd fakk kab la lii ñaata nga ci produire pour le moment. waa ji ku la ne man la. loolu ah. kay xale yi la man kay ah, man kay man man kay lii rek laa leen jox lii rek laa leen jox macha allah bay diw laa leen jox rek waaye li ko ci def ñoom barkeeloo allah bi moom bu génnaat fii <laughs> xale yi defe naa dinañ ci 3300 koy daal di barkeeloo incha allah euh, alors xale yi xale yi di mhm. defe naa dinañ ci wut lu bari dinañ ci wut lu bari incha allah màggal gi dinañ ci wut lu bari pour màggal gi mm. waaye nag man dama ne leen ñu koy wàcce ba fii ñu koy wàcce ba foofu ndax kon dana nekkati masque pour masque wu ci leen masque boo fattee nag boo boo cest <laughs> à na nga xool ba xam rek bu dee ñoom Cheikh Mbacke ñuy amee asma de <laughs> eh, <laughs> ndeysaan macha allah macha allah xam naa ba la ñu jeexal du ñàkk ñu am kenn ci ndaw ñi ah. kenn ci ndaw yi day am solo bu ko defee ñu waajal xëy na kenn bu ñuy jeexal ak moom. Hmm. Euh, wax ñu un peu taxawaayu euh, kuréel boobu nga xam tey tàggat nga leen. Ah, ñu waaj ko incha allah bu jeex bu fekkee dana jàppandi ah. mais sang bi euh, bari ñu jeexal faaw ñu laaj sa diggante ak Serigne Mountakha Bachir. oh ah. kooku jërul laaj dafa hmm. xam. Hmm. du amul du diggante nee na maay moom mooy man moom kay li ma wax yuuhu. sax ak mbaaxam loolu du man rek la koy wax waaye daal nan ko ñaanal mu yàgg fi kooku moom xam nga ku ku amul xel da ngay defee ne pour yow rek la wala yow rek lay ñaanal wala yow rek ngay fonk moom il est pour tout le monde te loolu yàgg na ci de dëgg la bàyyiwul ba nekk xalif général des mourides mhm. sëñ Muntaxa moom naka jekk mhm. noonu la mel macha allah naka jekk moo tax sama diggante moom du diggante mhm. mbaa boog boo ko bëggee defub diggante xanaa diggante ku tedd ki ak Ceerno waaw ndeysaan ndax càllal la la ndeysaan te diggante ku tedd ki ak Ceerno du diggante daal doonu lu diggante waaw kilifa la goo xamante ne bi yàgg nañ koo waajal yàgg nañ ko waajal ngir mu yilif ñëpp yilif na ñëpp na ñëpp nangu ni moo yilif ñëpp waaw tey bàyyi xel ab joxañam wala xëyri ci dëgg la waaye du diggante dëgg la waaw léegi nag mën ngaa bàyyi mu niru kii waaw mu niru xam naa mais fi ñu jeexal ak yow hmm. bëgg naa tamit suñu akasa akasa waaw li ngeen tàmbalee woon sàng hmm. bëgg naa nga mayaat nga mel noonu ñu koo tëjee plateau bi waaw waaw ndax ah? waaw ndax li ma la ci wax rek hmm. dafa am lu may tàmbalee moom ba waxoon ko ko. waaw mu nekk benn nouveauté boo xamante ni bii luy dolleeku la. Mm-hmm. waaw macha aw njàngee nag jànkati xasaayid yeeg mm-hmm. ak murid yi nga xam dañuy baaxee xasaayid mm-hmm. ñëwal fi loo ñu mën a baaxee ci ci programme màggal gi sax waaw waaw màggal gi mooy màggal mooy li ma wax borom baax rek mooy ñoom ñu fexe ñu fexe ba xool li bis bi laaj bu alquran ak xasaayid jàllee alquran ak xasaayid bu jàllee sama taalif yi nga xam ni sama taalif yi nga xamante ne bii bind naa ko luñ ci mën a génn tasaare ko ñu génne ko. Mm-hmm. macha allah macha allah ndax daana amal waxtaan boo daan amal ginnaaw màggal gi ca Touba. waaw loolu de moom. xam naa ne daal bu jàllee. Mm-hmm. ak gàmmu gi aussi tamit incha allah. Mm-hmm. gàmm gi dinaa profité rek. wax ni ni ma defoon daaw nga xam ni gàmm gi. ci ëllëg sa dañ doon amal ñaanu Seydina Ousmane. ma bëgg a xamal ñëpp. ma bëgg a xamal sama ñëpp rek. waaw ndax ñëpp a yem ci man. macha allah waaw léegi dañuy fas yéene di ko bàyyi ba. Mhm. fukki fan ak ñeent ci Shaaban. Mm. ndax fukki fan ak juróom ya mooy màggalu daaru mu ati waaye nag ñu koy bàyyi ba ndax itam euh, ku ko xam-xam ni. dafa am nu mu jàppe woon borom daaru mu ati mhm. kon jël bisam. jël bisam. Mhm. maanaam minduloo ko minduloo ko gàttandoo ko mhm. bisu borom daaru mooti defe naa ni loolu da koy neex mhm. waaw moo tax may occasion pour jàllale ko léegi na ma ko defee woon bee weesu nga xam ne dañoo gàmm ba ca ëllëg sa déedéet bi yoon dañuy bàyyi ba màggalu daaru mooti bañ nga ëllëg sa la mhm. waaw fukki fan ak ñeent ci Shaaban incha allah ñu ñaanal ko ci euh, DTV de lim def lim am tey lu muy bëgg di ko bëggaat di ko bëggaat ndax mu nga ñëw dikk ñu yaakaar ko ni daañu mën a amaat lu mel ni diwo bi nga am ni ak ak asaam. loolu yaatu loolu na sa xel dal. alhamdulilah ndax dafa am lu ma war a liggéey ak moom. Mhm. loo xamante ni bii eh, luy yokku la. Mhm. ci li muy def moom ñi mu ko bokkaleel jàngkati xasaay di dafa am na ñuy jàng. Mhm. waaye war nañ ciy boole bu ñuy wax bayit yi itam di wax ay wolof ci ku tedd ki. lu mel ni ba mu jógee Mbacke Bari. ak na mu fanaanee jeewal ak ña ko doon jël si te mu tase fa ak ñoom ak la fa xew ci ahlu badrin te ku tedd ki bind ko nangama ak nangam yooyu moom dinaa def ak moom yu bees yoo xam ne xewlu woon yoo xam ne loolu la sa xel dal macha allah <laughs> eh, ana sëñ sëñ Muniru bala ñuy jeexal bu ko defee sëñ Muniru ñu am ak moom tuuti ci kii bu ko defee sëñ ngeen def eh, duo bu am solo léegi mhm, noo ko bëggee xam nga léegi fi ñu toll nii mhm. man kay ni ma ko bëggee woon mat na xanaa kay fi ñu <laughs> léegi damay bàyyi hakaza uh-huh. dafa amee silam am façon waaw nañ ko ci bàyyi mm-hmm. nañ ko bàyyi ci façon moom mu tëje ko mm-hmm. man ngeen may ma tuuti ma dugg ci biir mhm. mu niru mottali la alhamdulilah kon alhamdulilah waaye jàppal ni daal bég nañ loolu Mbàkke ah, euh, gërëm na la ci ci waxtaan bi nga ñu mayati yàlla bu mu doon suñu mujjul gi waxtaan na amaat ay yooni yoon ay ati ati at lépp ci kaw tawfeex ak xéewal vraiment jàppal ni DTV bég na lool ci yow lépp ci waajalu màggal gi du ñàkk sax yëkkati ay kàddu jëm ko ci DTV avant ñuy jeexal ak yow insha allah waaw waaw mooy li ma waxoon sànq rek ah, ah. dama laa dama laa nuyu sargal la ak sa naatu ko yi nga àndal mm-hmm. Mm-hmm. waaw ak euh, waa DTV waa DTV yëpp mm-hmm. donc euh, di leen ñaanal itam li nga xam ne moom ngeen di liggéey ngeen am ci saadatu daare ni am ci bonheur fii am ci satis ni ngeen di satisfaire doomu aadama yi fii malaayika yi itam bekk yéen alhamdulilah loolu adduna ak alaxira macha allah ngeen am ci adduna am ci alaxira rek macha allah macha allah jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke kon euh, sëñ Akassa dañ lay jox kàddu gi Euh, bu ko defee nga daal di euh, rek euh, barkeelu incha ànd ko ak ak ak ñun mën nga jóg taxaw sax bu ko defee nga nga daal di doxantu ah doxantu ñu daal di am benn um, daal waxtaan wu am solom sëñ ak sa maa ngi koy wax sàng danga nga judd ci yoonu murit fekk say maam doon def li ngay def nga donn ko kon mu jéew si mu réer macha allah ñu bàyyi la nga yëkkati incha allah lu baax lu baax ba jàll baax lu baax lu baax lu baax bajaa lu baax waaye sëriñ bee weesu baax baax ngi yam fi watt baax baaxaale gaay xarnu bi Seex Bamba waa ju ko sopp daal di baax waa ju ko weddi dootu baax waa ju mu gërëm nga gën di baax waaye yaa ko war na xarnu bi Seex Bamba waaye mu du ñir gaari ci laax du ci mbaa ay sagar di daax lu xam daar ci baax ku weddi seetal xam nu bi ku weddi demal la gan si xisaa jëne mbar moo amaru gan yaaram la wuti naa ak sa gën ba baa ku ñam ci xarnu bi si bamba kenn dootu dox kenn li nga dox masha Allah kenn dootu wax kenn li nga wax kenn dootu dox kenn li nga dox dara la wal nga xarnu bi Kamal téeréem ba bamba la misaal ginnaar mooy aboor jaal xut bi woon xar bi Seex Bamba yaa di ab nawet sëb bi nga tooy nga gépp fet bay nga mu ñor góom nga ba fat man ngaa dool waaxar na bi Seex Bamba yaa di ab nawet sëb bi nga tooy nga gépp bay nga mu ñor góom nga ba fat man ngaa dool waaxar na bi te falu naa yal na Sëriñ Tuubaa naa defar suñu biir baati naa aw baa naa walla fili Moussa ànd ak Serigne Touba te am na solo waaye nag dañoo jub bis bu am solo bis boo xamante ni bi xam nga ko bu baax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul da ko fonkoon lool ni ñu ko waxtaan sang ak Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni ah bis bi dem de am ngeen ci cër am na fu ngeen daje ci Touba def dundal guddi gi ak bëccëg bi yëpp eh, ndax mën nañoo xam tuuti rek sëñ Akassa Samb tey naka lay waajale màggal gi ak it naka la jàngate tey màggal gi nga xam tey Cheikh Amadou mu woote na ko ngir santale ko suñu borom tabaraka wa taala di am mbégte mu tedd jërëjëf ci laaj bi nga ma laaj mm-hmm. ak gu tedd gii nga ma fekk mm-hmm. muy Cheikh Amadou Karam Mbacke Noreyni xam naa bala ma laa tontu ci question yi mm-hmm. ma sant ci boole gii ma booleeg boole gii ma yàlla booleeg Cheikh Amadou Karam Mbacke Noreyni ak wax gi mu wax ci làmmiñam ni ma sëñ tubaa indi na la ci sama loxo. Mhm. loolu nekk mbégte ci man nekk fierté ci man bu baax ndax nekk taalibe sëñ Touba. Mhm. di liggéeyal sëñ Touba ba sotu sëñ Touba am yitte ci yow. am mhm. yëg ci yow tàllal la loxo. ngir dugal la ci jëmmam loolu mooy ndimbalu yàlla mooy ndimbalu sëñ tubaa moom lañ doon ñaan mel na ni tey tàbbi nañ sax aljanna ngir wax bi ma wax ne ma sëñ tubaa indi na la ci sama loxo si Ahmadou Kara Mbacké nii te ma am lu rëy lu lu ma jàpp ci moom muy niveau bi niveau bi mu am ci bëgg sëñ Tuubaa fu mu ko jële fu mu ko jànge ku ko ko jàngal ak ku ko ko ku ko ko branché Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni ni ni mu bëgg sëñ Tuubaa niveau boobu moo may moom moo ma jaaxal waaw mbigam waxam inspiration xalaatam xelam lépp ñu ngi koy jëlee ci sëñ Tuubaa amul feneen fu muy inspiré woo mm-hmm. lu dul toujours rek dafay tourner vers le cheikh. macha allah ndax cheikh Amadou mm-hmm. kon maa ngi sant bu baax ci fii. waaye màggal gi ni nu koy waajalee sëñ Modou. Mm-hmm. mooy ak mbégte. mu rëy sunu xol dafay sedd. Mm-hmm. ndax ñun amuñu lu dul sëñ Touba. te mu woo ñu ni nan ko la yàlla. cant googu nag. dañ ciy feer ndax toujours dañuy gis ni lu ñu def ci cant gi rek buñ paree. dañuy mel ni garab goo xamante ni dañ koo dañ koo defal. dañ koo defal. Euh, euh, euh, li ñuy def ci garab. waaw dañ ko defal tos. dañ ko defal tos. Mhm. mu barkeel jebbi jebbi naat naat macha allah meññ mhm. lu ñu def ci màggal gi rek dañ koy xeeb rawatina man mhm. li ma gën a marke ci màggal gi mooy su ma gisee borom sareet yi rangaloo teg mat si kaw sareet yi wuti Touba wuti wuti sëñ Touba kon màggal gi ñëppay ñëppay barkeel màggal gi ñëppay ñëw ci koom-koom gi ñun nag jamono bi nga xamante ni maa ngi nekk tout tànk di ànd ak mag yi xasida yi ñi ma doon àndal sëñ Mbacke Jaxate sëñ Moustapha Sy mhm. ah ak ñooñu jamono boobu ñoo ngi jànge ci buntu kër sëñ Abdou Lahad Mbacké mhm. boobu maa ci gën a nekk xale ci jàngkat yi mhm. jamono boobu nag ñoo ngi koy jànge ci buntu kër sëñ Abdou Lahad jamono boobu benn jàng rek amoon muy buntu kër sëñ Abdou fu fi leen daan jànge xasaayit benn tànt boobu la màggal gi amoon aussi xanaa bu amee bu ko ñaareel mooy mbaaru daaru xuddoos nga xam ne mbaar mi zeng woon mooy loolu xam ni bi ñu fi def ñi tey bañ fa jógee ñu ñëw menn at ci buntu kër sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñu jóge fa ñëw menn at ci buntu kër sëriñ Saaliwu Mbàkke sëriñ Saaliwu nag moo nu joxoon ndigal ngir ñu dem di ko màggale ci daaray kaamil ci jullikaay bi mhm. jàkk ji den ak moom fa la ñuy nekk ñoo jàngkat yi mhm. ya fa des ndax ña fa magoon ñëpp ñu ci bari wàcc nañ liggéey mm, ñun ñoo fa des comme ay mag tey ji mhm. di dundal guddi gi foofu ci penku jumaa ji fa la ñuy fanaanee jàng xasaay ji di tàgg rasulullahi alayhi salaam. ci xaside yi sëñ Touba bind. macha nga xamante ne xaside yi. Mm-hmm. ah mooy sunu xol. Mm-hmm. mooy sunu alal. Mm-hmm. mooy sunu gànjar mooy sunu lépp. ndax ci la nuy dolli ko. sa sëñ Touba day wax naan. matxu rasulullahi rabba kulli wa sarmadan jaharan xasan kulli. macha allah nee na tàgg yonent bi. mooy sama mooy sama prix d'achat. macha allah mooy sama prix de revient. mooy sama bénéfice aussi. <laughs> mais sëñ Akassa euh, solo si mu am jàng xasida yi tàgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais façon façon bi ngay jàngee euh, dan mën a wax ni benn la ci yow macha allah euh, daa am foo ko royee ci koo ko royee wala dafa la ñëwal di nga ni man faawu ma ñëw doon man doon Akassa waaw. déedéet façon bu njëkk bi ma daan jàngee. Mhm. dama ci daan roy ku nuy wax Serigne Moussa Gueye dëkk ca Ndar. Hmm. nekk taalibe sëñ. sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mourtala Mbacke. Mhm. bu mag. Mhm. nga xamante ni ñoom ma nga dëkkoon waalo. mu mhm. ngi dund ba tey yàlla na yàlla yokku euh, euh, fanam. yokk wéram. njàng mu jëkk ma sëñ Moussa Gueye laa ci doon roy. waaye nii may jànge façon bi sëñ Touba ma ko jox. ndax daf ma ko daan dégtal ma koy dégg. mais du ma xam. fan laay gisee ku ma jox air bi du ko xam waaye guddi la yetu xadar. maa ngi toog sukk samay oom di jàng bi may jàng nag ba sori ci guddi gi am na jëmm ju dugg ci baas bi mhm. maa ngi gis loxo yi waaye gisuma tànk yi gisuma bopp hmm. mu ñëw foofu loxoom teg ko sama bopp hmm. njàng mi sensé ni may jànge keroog la ma dikkal hmm. ba tey jii nii waaye ni may jànge nii lu jiitu loolu daan naa ko dégg toog di ko dégg muy riir di wër sama nopp yi ma koy dégg ma bëgg koo wax waaye du ma ko mën a wax nga xam ne njàng mu njëkk moom ma doon roy sëñ sa Gueye mhm. moom laa doon jànge ba nga xamante ni nag dikkal na ma ci guddi layetul xadar gi mhm. keroog la ma ñi may jànge mhm. dikkal xam naa ne li wér ci wër mooy daañuy àggale waxtaan wi ca DTV incha allah nga may ñu waxtaan am ngont mu am solo moo xam xam naa ni buñ génnee léegi eh, daañu ko tënk tënk waxtu weeg bis bi incha allah bu ko defee nga ñëw waxtaane ko fa ak ñun waaye du ñàkk rek eh, ñu laaj tuuti ngir jeexal ak yow eh, kañ nga tàmbali jàng maa ngi wax sànq 1981 juum naa ceeb juumu ma ci. minef loolu juumoo si. 1981 mhm. laa jëkk fanaan si baas. Mhm. jàng ba bët set. Mhm. booba nag. gën naa nekk xale. ndeysaan. mais 1981 daal. laa xam laa xa xàmmee. boobu maa ngi tëkk njëlu Cheikh Abdou sama sama dënn. ndeysaan dëkk bu ñuy wax Boussole Lo. fi laa fanaan ay jàng ba bët set. mais jàng moom dañ judd rek di ko def. ndeysaan dëgg la. ndax sama maam sëñ Tuubaa daf ko doon gane si mhm. ci Louga Malick Kodd Awa Xarja Sàmb la tudd sëñ Masamba Mbàkke daf ko daan gane si mhm. ñuy jëlee ay jàngkat aussi ndar macha allah jàngkat bi ñuy wax Ngaari Fall ak mhm. jàngkat bi ñuy wax Alxaaji Amadou Sëy mbay sa ñu neexoon baat mën a jàng ak sëñ Aliou Fall ndeysaan mi nga xam te ne moom la Ablaye Ablaye ñang daan roy ndeysaan ñu leen di jëli ndar di leen di indi Louga ci sama kër maam ndeysaan jàng moom dañu yeewu rek ndeysaan nekk ci gis ko di ko def suñu wéy di ànd kook sëñ Masamba Mbàkke ndeysaan di ko def jërëjëf jërëjëf sëñ Akassa bégte la xam na ne ma ko waxee léegi rek daañu kale incha allah léegi yeggale may ñi ñi nga xam ne ñoo safoo sëñ Akassa Samb euh, safoo am njàngam nan ko xaar ci DTV dama annoncé léegi nag waaye xam leen ni bëggumaa wax fii muy xay na muy soppi kumba dara waaye daal xam leen incha allah dana ñëw bala mu yàgg dara dara dara ci DTV incha allah avant màggal gi ànd ko ak li nga xam mooy mbokki taalibé yi euh, ñi ngi noonu sant leen bu baax gërëm leen sëñ Muniru xam naa ni danañ bàyyi la ci télé bi incha waxtaan ak yow ci lu gën a yaatu ndax xam nga ni waxtu wi euh, euh, dab nañu waxtu sunu waxtaanu émission def nañu une heure trente incha allah kon mi ngi noonu ñu sant bu baax tam Serigne Ahmadou euh, Mbacke Kara Noreyni mi nga xam tey moo ñu dalal fii waxtaan nag ak moom ci lu am solo ci wàccay màggal gi waxtaan ak moom ci actualité politique économique waaye sax waxtu tuuti ci mbirum Sénégal tolluwaay bi waaye ñu ngi koy sant bu baax di gërëm ñu nekkoon doon bàyyi xel di TV ñi nekkoon ci Facebook bi ak kon ci canal 12 ci TNT bi suba incha allah bàyyi leen ko xel 21h daañu am Serigne Gana Messere ngeen xam ko bu baax di wala réew suñu ak sa Samb mii yàgg ànd moom ci plateau waaye itam daañu ànd ak sëriñ Xaadim Guèye di wala réew sëñ ak sa Samb mi itam sëñ Xaadim Guèye ak sëñ Gana Messere incha allah suba. ci altine ji 28 septembre incha allah à partir de 21 heures ci seen télévision DTV lépp ci waajal màggal gi ak plateau yi nga xam tey dañ koo ànd ak yéen kon jaa ngeen ba suba incha allah ci 21 heures ma ànd ko ak samay invité illa liqa